Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf ay bakkan yu ñuy faat ci anam yu doy waar jaaxal lool askan wi tey ji réew mi quotidien xëyaat ci ab xibaar bu doy waar muy ab taximan bu ñu faat ay bal pistolet lañu ko dóor ca Grand Yoff la xewee mu nekkaat beneen tiis gannaaw ñaari ndaw yu ñu faat ca Pikine Technopole Vox Populi di nettali tamit tiis bi di xam ne yi tamit ni taximan bi ñaari balu fetal lañu ko daal di dóor ca Grand Yoff Yoff te li ko waral mooy dafa wàllu woon ab soxna bi nga xamante ne dañu ko bëggoon a agressé lii moo tax les échos yéene gis ni ndakaaru ci boppam moo nekk ci ñàkkub karange ndax ci diiru ay waxtu rek lu toll ci ñetti doomu aadama lañu daal di faat bokk na ci ki yéene bi mu jullim amadu Diallo taximan bi nga xamante ne kon dafa doon wàllu ji ab soxna ñu dóor ko ay ballu pistolet ca Grand Yoff gannaaw kooke benn njagamaar toll ci fukki at ak juróom ñu faat koy tamit ca Bargny ba yëf yi xewee ki nga xamante ne mooy xaritom dàqan dañu ko mujj teg loxo les échos yokk ci ni beneen ndaw bi ñu faat kii moom nijaayam moo ko ko def ndax paaka la ko jamati ba mu ñàkk bakkanam lii mën nañ ci yokki tamit li tali bi di faat ndax réew mi quotidien dikk na tamit ci bilan l'accident bi xew ca dulu nga xamante ne léegi wàññi nañu lu toll ci fukk ak benn doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan yokk ci tamit bus bi nga xamante ne dafa këpp ci autoroute bi moo ne de ronga ñi feragul ci mbirub Aziz Dabala l'observateur ci la xëyee tey fàttali li nga xamante ne moom la procureur ci boppam di ko di sàkku ci ñi nga xamante ne ñoom lañ ci jàmbaaraama tuuma moom procureur li mu bëgg mooy ñu duut ab mandat de dépôt ñëpp ñi nga xamante ne njort nañu ni laale nañu ci mbir mi te dossier bi yéenekaay bi duñu xamal ni doyen des juges lañ ko fas yéene jébbal lii moo tax kay libération jàngat ci nii mbir yaa ngay gën a tar ngir Nabou lay ak i ñoñam ndax parquet bu Pikine géejawaay sàkku na ñu daal di ubbi ab information judiciaire ngir assassinat waaye tamit yeneen i mbir yi nga xamante ne mën nañ ko ci ñi ñëw jam baaraamu tuuma te ñooñee tamit yéenekaay bi di xam ne ni war nañ la naa dut ab mandat de dépôt ñi ñu dut baaraam kay mooy au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental ndax les fo yéenekaay li mu gis mooy ñaari kuréel yi dafa mel ni ñoom la république bi gën a bañ ba tax ñuy sàkkuwaat tey jile ñu daal di koy tas mbëbët bi tukkee ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye moo tax mu daal di convoqué session extraordinaire bu assemblée nationale le njiitu réew mi yees di def jamono ji tax na sax ba assemblée nationale ci boppam jaaxle lool ndax sañ-sañ bi nga xamante ne moom Bassirou Diomaye Faye am na ko ngir sàkku ñu daal di ubbi ab plénière daar daar session bi président de la république sàkku Sud Quotidien daf ko gisee ab ndëgg sërëx bi nga xamante ne Bassirou Diomaye Faye ci boppam daf ko def majorité parlementaire bi ci assemblée nationale yéene kay groupe Sud Communication bi jàpp ni lii weesul cokkaas bi nga xamante ne de la république bi ci assemblée nationale boo moytul sa gatsa sa la jëm ndax Walf Quotidien dafa gis ni liy xeeñ moom diggante majorité parlementaire ak nguur gi ci boppam nekkul luy yomb benn yoon L'As Quotidien di ko dëggal ndax gis na ni député yu Benno Bokk Yaakaar yi dañu fas yéene defante dëgg ak Bassirou Diomaye fay ñenn ñi sax dem ba xam le ni plénière bu muy sàkku niki ëllëg loole mënuta antu moo tax yéenekaay bi di dikkaat ci ay mbir ak ñagas-ñagas yu mën a ànd ak lii nga xamante gi national bi njiitu réew mi moom mel ni ku ko yëgalul yaramam ndax réew mi quotidien mu ngi ñuy xamal ni démb Bassirou Diomaye Faye daa dina jël xalimaam tabb Aminata Touré ngir mu doon au représentant du président de la république lii ñu tabb nag jëwriñ ju njëkk ja woon Walf Quotidien dafa jàpp ni Mimi Touré ci boppam dugg na ci nguur gi waaye dafa mel ni bunt bu ndaw bi lañu ko ubbil état moom dafa fas yéene ubbi robinet yi ngir ndox mu sell ñëpp mën cee jot ci Sénégal état bi ci boppam jël na ko ci ndajeb conseil interministériel bi nga xamante ne démb njiital jëwriñ yi Ousmane Sonko moo ko daal di jiite moom njiital fa wax ci li nga xamante ne war nañ ko indi ni ay coppite ba tax ñëpp ci Sénégal fu waay mënti nekk mën a jot tamit ci ndox bi wax nañu ci ndaje boobe ci lu jëm ci financement projet grand transfert do di GTE bi nga xamante ne kon comité bi war a yor application bi ci boppam daal di nañ koy samp enquête daal di ñëw tey ci ab bu yaa bi nga xamante jëfandikoo téléphone portable yi mu gis ni daanaka kenn mënu cee mucc rawatina ndaw ñi njeexital bi nga xamante ne tamit am na ko ci ñoom njeexital bi nga xamante ne tamit am na ko ci askan wi ba ci sax yenn lëkkaloo muy relation sociale yi relation bi Iliman Ndiaye sekk léegi ak Everton gën a ratax ndax doomu sénégalais bi démb li mu wane ci ab jongante League Cup bi nga xamante ne clubam bi di Everton am na ci ndam bu yaa mu dugal ci tamit bit bu mucc ayib Boulaye Dia moom ci équipe nationale ci la jëm bi